ndax jëpp jëf ju ñu jëf ca bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja sëñ bee ko raw gën koo rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju rëy fa barab waa asalaamaaleykum euh, mbokk interlocuteur yéen ñi faral di seetaan seen euh, Allo TV international ba tey ñi ngi xel koom ñi ngi fii nag kër Cheikh Amar moom Serigne Saliou muy euh, jëwriñu liggéey Serigne Saliou Mbacke bi euh, ñu taxawal nag ñaar ñoo xam ni kenn lañu ci kër euh, Cheikh Amar ñu leen di tuddee les gardes-corps de de Cheikh Amar moo am ci nag kenn koo xam ne yàlla dafa dogaloon ci seen biir mu nekk àndoon ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne saa su ne mi ngi ànd ak ñoom ñu koy wax El Hadji Ibrahima Diop ñu gën koo xam ci njool tey nag cette année ñoom ñi nga xam ne dañuy ànd ak Cheikh Amar. ñu ni dañuy rendre hommage ki nga xam seen mbokkum taalibe bi nga xam ni ñoom la ñu àndaloon saa su ne te mu jiite woon leen su ko defee ñu bàyyi kàddu gi ak kenn ci ñoom mu nuyoog mbooloo mi ta wax len lan moo tax ñoom tey ñu jël année bi ñoom ñëpp pour rendre ci hommage ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Diop sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. maa leen ngi fay. mën ngaa wax bokki taalibe yi sa tur ak sa sant ak lu waral tamit tey jii yéen ñëpp ngeen jël seen t-shirt yi ngeen def ci Cheikh Ibrahima Diop mi pour rendre ko hommage. ma ngi tudd Cheikh Ahmed Tidiane ñumay eh, wax pap tal euh rendre hommage eh, Ibrahima Diop Ndiol nekkon ci ñun nekkon eh, ku ku sori Won ci ñun nekkon ku bokkon ci ñun yalla def mu genn aduna bi mu genné aduna ak légui ñi ngi soga ñew xel kom bi ñu ñu né nañ ko rendre hommage lool la woon. mën nga ñu wax ci jaar jaaru Ibrahima Diop. waaw Ibrahima Diop euh, jaar-jaaram mun naa ne képp ku nekk ci kër gi marqué na la parce que li tax mu lay marqué parce que nekkoon nag ka nga xamante ni nii ku yaatu woon la ku baaxoon la sànq bi ñuy dem ci tool yi am na fu ñu toll ñi ngi fàttali ay ay jaloorem di wax ci moom lu baax di wax ci moom lu rafet voilà loolu daal laa xam ne moom wax dëgg yàlla mun naa ko koo seedeel ku yaatu woon la ku baaxoon la te ba pare ku bëggoon nit la ku bëggoon doomu aadama la. ndax moom dafa daf mel ni Xelcom la doon ànd ak Cheikh wala dafa nekkoon koo xam ne dafa nekkoon ci Cheikh di ànd ak moom ci liggéey bi. waaw moom dafa nekkoon comme ñun ni ñu nekkee ci sécurité bi sécurité la woon comme ñun di di ànd ak Cheikh mun demoon nañ sax bañ naan ci kër gi la bokk parce que demoon na ba bokk ba bokk ci daanaka ci famille bi ci gàttal parce que mun nañ ne tey jii tey doomam bi ñu doomu Cheikh bi ñuy wax euh, abdu ku ko mosaan gis gis nga kook njool ku ko mosaan xam xam nga kook njool moo tax tey jii tey demoon na ba nekkatul woon garde corps ci kër gi maanaam mbokk la woon ci kër gi xarit la woon soppe woon ci kër gi voilà. sëriñ bi ndax euh, nekk sécurité ci kilifa gu mel ne Cheikh Amar bi nga xam ne tey mooy nga euh, jëwriñu koom ak ni mu demee ci kër sëriñ Saaliw ak ni mu demee ci dëkk bi ndax yor bokk ci ay sécurité ndax loolu yomb na. waa <laughs> ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. gërëm ñëpp waa kilifa gu mel ni Cheikh Amar moom nekk secrétaire am waaw xaw na jafe nag. ndax ku toll ni Cheikh nekk taalibe Serigne Saliou nekk jëruñ ci kër Serigne Saliou liggéey bu Serigne Saliou am teg ko ci loxoom ba pare muy dimbali nit ñi ñëpp daw si ñoom di ko di ko seet si muy fat seeni aajo kooku nekk sécurité dina xaw a jafe waaye nag ñun yàlla moo ñu ko natoo ndax ñun ay taalibe Serigne Touba lañu. waaw ñun bu ñuy jëflanteeg patron la ñu jëflante moom dañuy xool li suñu jëwriñ la pour teg suñu liggéey yëpp ci yoon jàppale ko waa yombul nag xaw na jafe trop. bi ngeen déggee dog-dog bi nga xam ne yàlla def na mu dal ko te yaakaar naa ne boobu am nañu bokk na ci ñi àndoon ak moom ndog-ndog boobu am ba boo xoolee bi mooy première sortie bi mu génnee muy ci xelkom bi mu wax ne moom ñaari bis la am mooy xelkom ak euh, màggalu Serigne Touba gi ba bi ngeen déggee loolu ban yëg ngeen ci am ak bi ngeen ko gisaatee mu génn ànd ak yéen ñëw ci xelkom. bañ ko yëgee nag am nañ lu ñu métti trop dafa mel ni ñun suñu bopp ñun ñoo def choc bi waaw kenn yéenewu ko te nii rek la mënoon demee choc bi yàlla moo ko nam mu am ci moom waaye xam ñun gëmoon nañ ni soog bi nekkul lu luy yóbbu Cheikh ndax li muy dimbali doomu jàmbur yi nit ñi ko yaakaar ñun dañuy liggéey ak moom mais dañoo yaakaar ci moom ndax lu ñuy yóbbu suñu kër moo ñu ko jox ñaanu nit ñi koy ñaanal ñëpp xamoon nañ ni soog bii du moo ko yóbbu waaw mais nag sant yàlla bu baax parce que yàlla suñu borom lu mu nam lool la. lu mu namm loola métti woon nañu trop nag métti woon nañu trop ñaan yi yëkkati na ko ñaanu Serigne Saliou yëkkati na ko ñi ngi sant yàlla kontaan nañ tamit ba ñu àndaat ak moom ñëw ci Xelcom bii mu jiitewaat liggéey bi nekk suñu jëwriñ ñu àndaat moom liggéey kontaan nañ loolu ñu àndaat ak moom liggéey ñii mooy ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak Cheikh Ibrahima Diop Ndiol ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne que Cheikh Amar nekk euh, ci wàllu sécurité te sécurité yomb na yombut waaye nag yàlla boole woon na la nag koo xamante ni si nit ku baax la nit ku yiw la muy Cheikh Amar kon daal euh, ñi ngi ñaanal euh, Cheikh Ibrahima Diop fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jóge ci barke bi Serigne Salim waaye ku nekk ci toolu bu xale nag ba dee ca moom yaakaar naa ni wàcc nga kon Cheikh Ibrahima Diop gannaaw ñaan yi ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla booleeg Serigne Saliou ñu àndoon ci ak Allo Dakar TV international ak euh, Assane Gawlo moo leen ko doon présenté caméraman bi Mbaye Diaw ànd ak directeur général. ak euh, ki nekk ci presse écrite bi aussi muy euh, monsieur Diallo njëriñ ngeen jëf ba beneen yoon. ndax jëpp jëf ju ñu jëf ca bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja sëñ ko raw gën koo rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju fa barab bu mag ba nekk fa Tuuba